question de mobilier j'avais dit que j'y reviendrai et matériel administratif gis nga dëgg dafa neexul Talla Sylla dafa am kër gu muy dugal ay mobilier si la dafa am Talla Sylla suuf bàmmeel la ci am te ku ko bëgg a xam da ngay dem ba jëlleerlu c'est quelqu'un qui qui pense tellement à la mort que depuis plus de quinze ans combien de fois je suis allé avec lui sur son tombeau vide. Je le taquinais chaque fois en lui disant qu'un jour, tu rempliras ce trou-là. mu ne ma j'attends ce jour avec patience. C'est à Djeleerlu Silla dans le à Louga à la région de Louga. Son tombeau est déjà préparé depuis plus de 15 ans. Pour l'anecdote même un jour il me dit su ma dee na nga fexe ba ñu jullee ma kër sëñ Ablaye yóbbu ma ba euh, déedéet yóbbu ma ba ba ba ba déedéet fële rimbax wane ma fa doog maa indi denc ma ne ko est-ce que maa lay njëkk a mun ma si parce que man à quatre-vingt-deux ans je vais quitter ce monde kuy ku xalaat loolu kuy xalaat ay néew ñaari si cimetière nga defal ko ay nit xalaatoo kenn mësul gis taala si la ñu ni la fii mooy këram amul te du ma sa am c'est son choix nous le respectons bien que ñun ñi été de notre seule il aurait une maison comme tout le monde mais il n'en a pas c'est son choix et les choix on les respecte et les goûts on les respecte c'est ça la vérité l'acquisition de mobilier dont il parle à hauteur de 19 millions tout le monde sait que la ville et en réhabilitation grâce au fonds PACASEN. D'ailleurs, c'est ce même fonds PACASEN qui va, va paver la ville. Ce pas un projet du maire Babacar Diop. Ça se trouve dans le PTI, le programme triennal d'investissement, qui se trouve dans le programme de développement de la ville PDV créé par Talasila depuis 2019. Donc, c'est des fonds du PACASEN, ce n'est pas un projet. tous les documents y afférents ont été signés et par Talasila, le maire Talasila. Mais comme il y a continué de l'État, c'est la continuité de l'État. Donc, pour ce mobilier, lorsque qu'on lui a amené du mobilier, on, on, on lui a dit que c'était du mobilier venant de l'extérieur. importé. Il a refusé catégoriquement. Et il a demandé à ce que le retournions ce mobilier de trouver du local. Non seulement pour aider nos artisans qui sont très fatigués et qui n'ont généralement pas de marché par rapport à ça. Mais surtout, il avait demandé à ce que ce mobilier, comme la ville est en réhabilitation, qu'on attende jusqu'au la, la, la fin des travaux, jusqu'à la fin des travaux, pour pouvoir amener. Comme ça, ça fera du neuf. C'est toujours ça. Donc, il n'y a pas à s'alarmer. Pour ce qui est de procédure de passation de marché, marché, tout a été respecté. Tout a été respecté. Du matériel n'a pas été livré Livré à qui Le matériel est venu, mais jusqu'à présent, le maire avait demandé à ce que ça soit du matériel de fabrication locale. Donc même si le fournisseur détient du matériel quelque part, il ne peut pas l'amener si ce pas de la de, du matériel de fabrication locale. Et on avait tablé sur le fait que après la construction, euh, la, la réhabilitation, le matériel allait venir donc et tout juste pour qu'on puisse euh, les, bureaux. Tout le monde sait que Talla Sylla pendant presque combien d'années il n'a pas eu de bureau. Pourquoi? Parce que c'est moi-même qui ai enlevé son bureau de fabrication extérieure importée. Il m'a demandé, lorsque ce bureau a été amorti, le marché a été amorti, il m'a demandé, à la veille d'une de ses visites à l'extérieur, il m'avait, de, de, de, d'un de ses voyages à l'extérieur, il m'avait demandé de de lui enlever ça, puisque c'était déjà amorti, et qu'on lui trouve du matériel local. Nous avons, j'étais en son temps son directeur de cabinet, et l'actuel, avec l'actuel secrétaire général, nous avons fait des pieds et des mains pour avoir du matériel local. Nous n'en avions pas. Et il a continué comme ça, sur sa natte, tranquillement, à s'occuper de, des Thiessois. rien à se reprocher alors. Absolument rien à se reprocher. Je vais... Uh -huh. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu, tout juste pour parler de réévaluation de ces contrats-là Est-ce euh, que a non, ne du paye tout, ça ne justifie pas. Mais le problème, c'est que il y a quand même, nous, nous le, le, le, le, maire Talesila a envoyé une correspondance en 2018, une, une première, un premier courrier en 2018 pour, réhabiliter, pour réhabiliter. Nous savons, nous savons quoi. Qu'est-ce qui s'est passé à la ville Pendant presque ces quatre ans, nous n'avions pas de budget, nous n'avions rien. Nous n'avions même pas la possibilité de recouvrer. Et pourtant, le recouvrement n'incombe pas à la ville. à une commune le recouvrement incombe aux structures étatiques c'est-à-dire à la recette perception municipale qui en définit les contours qui crée la commission la mairie amène ses agents et les impôts et domaines aussi amène c'est une commission paritaire le recouvrement n'est pas sous le le le le contrôle de la de la ville ou la compétence de la ville mais sous ça se fait par la recette perception municipale ce sont des services compétents Babacar Diop par rapport à la Sonatel nous avons évalué j'ai dit que nous avons nous sommes restés de parce que nous sommes arrivés en fin 2000 2014 donc 2015 2016 2017 on était sans budget on était dans des combats on était empêchés partout on était bloqué parce que rappelez-vous en son temps le maire Talla Sylla était dans l'opposition le père Talla Sylla était dans l'opposition euh, vous savez vous savez ça ça dépend de l'opportunité et du jugement du maire qui est compétent en la matière de toute façon Babacar Diop ne peut pas dire que c'est lui qui l'a initié les les documents sont là les références sont là le maire Talla Sylla l'avait fait un point c'est tout maintenant pourtant bien qu'il l'ait fait mais mais il n'y a pas eu de suite puisque la pandémie est arrivée mais nous ne pouvons pas préjuger de de de de ce que le maire doit faire à à temps T ou à temps T2 ou à temps T T0 donc c'est à lui de juger le moment opportun pour essayer de

le maire Talla Sylla a fait 14 fois la prison étant très jeune 14 fois la prison on attend Babacar Diop 14 vous savez pour ce qui est du carburant vous vous a... pour ce qui est du carburant moi je n'entre pas dans des chiffres mais je vais vous dire une chose pour ce qui est du carburant le carburant est à la discrétion et et ce à la discrétion du maire et du et du et du et du receveur percepteur municipal. Il est voté dans le budget. Mais je vais vous apprendre quelque chose. Talla Sylla est le seul maire qui donnait du carburant au président de commission. Attention. Avant d'en parler, il faut faire attention. allez demander au président de commission il y a au moins 21 commissions à la ville de Thiès d'ailleurs nous demandons à Babacar Diop pourquoi depuis son installation aucune commission n'a été mise en place et c'est prévu par la loi aucune commission n'a été mise en place je rappelle que le maire Talla Sylla donnait du carburant même au président de commission avant d'en parler il faut faire très attention mais lui s'il est s'il est interpellé s'il est interpellé il est interpellé par qui par par Babacar à partir de quoi de quel renseignement et de quel audit il c'est pas les dix de 2021 c'est on on de pied ferme il n'a qu'à sortir les nous on sent on n'est pas dans dans cette optique là c'est-à-dire ce problème ne nous concerne pas vous savez ce qui nous concerne c'est éclairer la lanterne des Thiessois Nous ne répondons pas à Babacar Diop. Euh, Babacar, tu veux me faire glisser sur le terrain politique On y, rev... on y viendra un peu. J'en parle, mais je ne vais, je vais pas accepter de politiser l'affaire. Non, je vais pas accepter de politiser ma réponse pour le moment. Je réponds point par point sur ce qu'il a dit. Ensuite, on verra. Je rappelle, ensuite, il a parlé de gestion, transparence, gestion. Allez dans son bureau, Babacar Diop il y a trois trophées du PEL prix d'excellence leadership local pendant trois ans le maire Talla Sylla la ville de Thiès a gagné ce prix sur la transparence et la reddition des comptes tout le monde est là les trophées se trouvent dans son bureau les cent dès dès les cent premiers jours de son magistère il a organisé la première audience publique quinze audiences publiques en sept ans sept mois pour rendre compte pourtant euh, les gens qui parlent ici dans cette ville étaient là étaient dans cette ville étaient là à Thiès pourquoi ils n'étaient pas venus on débattait de ces questions dans les audiences publiques pourquoi ces gens-là ne venaient pas aux audiences publiques pour soulever ces problèmes-là c'est aujourd'hui parce que jaan romb na nga bëgg a dóor ci watatam loolu moo rafetul dama ni Babacar Diop na wax commission yi lu tax tegu ko commission yi nekk mairie ma wax ni ay affaire carburant dama ni si Sylla est le seul maire boo xam ni carburant à part ñi nga xamante ni corbillard bi nga xamante ni carburant kenn daawu ko fay à part loolu oto yi nekk mairie ak oto bi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon voirie yi à part loolu je bien day doon jox carburant les présidents de commission. mais bu wax en wolof ne moom amul benn xarma yàlla ak Talla la. mais ah. nee si moom la fi fekk. loolu la wax rek Talla bi nga xamante ni def nañu installation bi quand on a fait l' bi ñu nekkee ci bureau bi di def eh, di def kii bi passation de service si Sylla def ko interpellé ni ko monsieur le maire mu ne ko ah, mu ni ko signe avec réserve le temps may ma rek le temps de de vous épancher sur les dossiers te nga gis te nga xam ni fii lu fi xew man maay responsable donc kay jeex na Talla Sylla ba ndag moom waaw ndax yéen pare ngeen pour euh, mais Babacar Diop bu ñu ko porter plainte lan dañuy dañuy dañuy mel ni dañoo nangu li mu wax Babacar jóob auditam laa la wax dama ni rakkam la indi est que ñun dañoo d' accord ci audit bi dama ni la bi may démarré non bi may démarré dama ni la li ma tax a toog fii du tontu Babacar jóob xam nga lan la. li ma tax a teew fii mooy point yi mu soulevé moom ma éclairé ci Thiès waay. le maire Talla Sylla est en est hors du pays depuis plus d'une semaine. non non vous on n'est pas de façon non non non ensuite si le maire Talla Sylla doit répondre il ne répondra pas il ne répondra que si que si il ne répondra que si que s'il est interpellés par des structures telles que l'IGE, l'OFNAC, l'ARMP et la Cour des comptes. mais ay ay benn benn waay rakku jàmbur bu jugee fee ah kooku du tax a wax Talla ko ku xam Talla Sylla xam ni ku ko ku ko kenn du ko jam naan loolu laa bëgg mu leer bi baneen bi dinaa rappeler à Babacar Diop et au Thiès wa yi ko xamul ni le maire la Sylla a été audité en 2015 par l'IGE. En mille 2014, à son arrivée par l'IGE. En 2015, à son arrivée par l'IGE. Ensuite, deux mois avant les locales, deux mois avant les locales, l'ARMP et la Cour des comptes ont fait 15 jours ici. Deux mois avant les locales, en novembre. Et l'ont félicité. Ouais. Mis à part Babacar Diop Poirier, mm-hmm. que vous ne pensez pas également que Talasila et son équipe se sont arrogés des prérogatives qui ne sont pas les siennes lesquelles des fois lesquelles vous ma vous ma donnez les prérogatives. moom toog nañu moom Talasila. Mm-hmm. mu ne am na yoo xam ne sax du compétence am waaye dafa jàpp ne Thiès waa ñoo fi ne da leen war a dimbali. dinaa la ci tontu tuuti. est-ce que du loolu moom dina dinaa la dinaa dinaa la ci tontu léegi dinaa la ci tontu la bu ne. man Cees waay yëpp laa jaboote daf ko wax ci ban cadre mooy cadre tey jii ñëpp xam na ni ma ni ñëpp xam na ni euh, nawetaan ay subvention communes yi ñoo ko yore dama bëgg nga déglu bu waax communes yi ñoo ko yore pourtant daawul jël xaalisu mairie bi di leen jox daf daan wuti alalu ja boppam jox leen di leen jàppale mani ni école yi école yi Talla Sylla yorewu ci benn le préscolaire et l'élémentaire sont su la compétence des communes l'université et les lycées les lycées collèges sont sous la responsabilité sont su la compétence du conseil départemental saa yu intervenira dama lay wax saa yu intervenira ci yooyu dama ni alalu boppam parce qu'il a des relations nag Talla Sylla xool Babacar Diop sax dafa dafa dafa war a xool boppam moom xam nga lu tax parce que moom moom voilà un maire qui pendant quatre ans n'a pas de budget n'a pas eu de budget pendant deux ans s'est heurté au Covid comme ak Talla xool leen réalisation te Babacar nee na saa yu saa yu saa yu saa yu reere bu doxee ci dëkk bi xolam day day tàng waaye nag fexe ba def plus de 2000 lampadaires solaires yi fi Talla Sylla def loolu mooy ndamam kër Diop na fexe ba def 16 kilomètres 500 yi fi Talla Sylla def dem négocier ko ak état bi waaw moom laa la wax dama ni dem négocier ko waaw parce que am na ci yoo xamante ni am na ci yoo xamante ni c'est par ses propres relations dama lay wax lampadaires solaires yi lampadaires solaires yi les communes ont reçu de, de, de petits seul Thiès au Sénégal devait recevoir 3000 les mille et plus nous ont été déjà livrés laneen lu lampadaire solaire bu ñëwaatoo nit la ca des dañ koy indi mais parce que par ses propres relations de utiliser 16 kilomètres 500 de route yi bi muy ñëw dama ni 16 kilomètres 500 de route yi bi nga xamante ni moom décidé na taxaw en 2017 en décembre 2017 nii mairie de comme démembrement état la il faut. xool nañu xool ni il faut ñu liggéey ak état gën a yàqali suñu ginnaaw dem yaatal suñu diggante ak état pacifier les relations ñëpp xamoon nañu les relations heurtées entre Thiès et le pouvoir central l' état qu'est-ce qu'est-ce qui s'est passé booba fekk na ñi ñi communes yi bu loon euh, ci ci ci ci kii bi ci Promoville bi jàll na mais c'est parce qu'il est allé négocier que ñu jël Thiès en compte dugal ko ci jox ko 16 kilomètres 500 11 kilomètres cent lañ ko njëkk a jox après président de la République que nous remercions le président Macky Sall yokkal ko 5 kilomètres. état des lieux par service assermenté par un cabinet assermenté. déggoo li a la wax dama ni la. dama ni la waaw. waaw ki lay wax. gëstuwul non non non non non non euh, euh, gëstuwul. su gëstu woon du ni dama damaa def audit ra kii yi ma ci jot gëstuwul dafa dem jël rakam indi ko muy conflit d'intérêt et délit d'initié mu indi ko ñuy mettre la pression sur les agents là-bas à la ville de Thiès. c'est ça dama ni mais xam nga kuy def sa yëf ku ñëw ñu fal la bees am na yoo yëngu yoo xam ne boo ko yëngoo ñu ni moom de xëy na li mu ñàkk a tax Talla Sylla moo ñëw taaral taaral euh, seen seen seen seen passation de service ñëpp gis nañu gunge ko ba ci biti ñu ànd mu ñaanal ko dugg ci otoom dem ñaanal ko ni ko yàlla nga def lu ëpp li ma def fii Talla Sylla à minuit le jour des élections téléphoné na Babacar Diop félicité ko kon Talla la moom gàccam ngaalaama. mais ce même Talla Sylla conseil municipal mu démissionné xam nga le choix d'une démission ou non euh, relève e personnel mais dama la ci dama lay wax leen rek. Euh, Babacar Babacar Talla la du ko entravé gis nga Talla la su su fekkente ni fal nañ ko lii mu wóor ko ni liggéeyam bi mu yore nu ko boole ak lii il préfère jël beneen Thiès waa mu toog fa ti présent au lieu moom muy absenté ëllëg ñu naan voilà un un un politique bañ ko falee ba léegi kenn gis ko parce que nous sommes restés sept ans sept mois ici mais am na ñoo xam ni mësuñu leen a gis xamuñu leen lu dul seen tur ci papier loolu la doon bañ. mais am na loo xam ne fee la mobilier bi bi xam pour ce qui est du mobilier j'ai dit ce que j'avais à dire.